dafa ameel bor Ousmane Sonko mooy président bi moo tax mu ne bu ñu waxul ci lii coow lu baree baree baree bari la nar indi ci réew mi waaw. dafa amee bor mooy lan nga wax bor hmm? dafa amee bor lan. maanaam président bi maanaam dafa mel dafa ameel bor ki nga xam ne mooy le premier ministre parce que moo ko joxoñ sénégalais far ko hmm. ni nag dafa mel ni bor boobu daal le président Diomaye dafay Ousmane Sonko moo tax mu ne def usman Sonko. Hmm. dafa am légitimité maanaam daal doole bu baree baree bari boo xam ni daal. Euh, jàppoon nañ ni waru koo mën a am. waaw xam nga xam nga lii moom jar na chaque jour sax ñuy leeral ñuy gën di leeral lu demee nii ndax wax dëgg yàlla man dama am gis ay kilifa yoo xamante ni maam buñ dee tuddi Sénégal dañ leen di boole si ñi ñuy tudd. waaw te wax dëgg yàlla mu mel ne daal seen xam-xam day réer. day réer mm-hmm. ndax bu fekkee ne tey jii nii wax na wax naa leen waxati leen ko waxante rek gannaaw Cissé bi chaque jour mu ñëw nit ñi koy wax rek mu bokk. waaw mooy Ousmane Sonko dafa bari doole dafa bari doole dafa def nii dafa def nii. si liñ si liñ siy tegit mooy ministres yi dañoo bari doole. Mhm. waaw ministres yi dañoo bari doole ab ministre nan la mën a lijjante avion ab ministre nan la mën a financer ay forages. Mhm. ab ministre nan la mën a taxawoo mbay mi. ba mhm. engrais bi yëpp dem ab ministre nan la mën a nan la mën a. di bàyyi président bi. léegi nag loolu li ko waral mooy ñi mu fal xool na ba xam ne ñii mu fal ni mën nañoo liggéey muy liggéey moom mu nekk si yeneen. su boobaa da jàpp ni. président bi liggéeyul. Mhm. wala bu fekkoon tey ji nit ñi dañ ne président bi duñ ko wooyee président. Mhm. wala président bi amul droit tukki wala wala wala waaye président bi ay activité am yëpp mi ngi ci. waaw. Hmm? li mu war a def mi ngi ci. mi ngi si li ñu war a def mi ngi si maam réew mi fu mu kaleegun ba kii da ngay teg point nga ni point bii da dafa kale lu tax mu kale nag mooy lii. bu ko defee ñun ñu constat te loola nga wax xam ne wax nga dëgg dafa kale mais mu amuñu benn point boo ñu mën a tegal lu dul rek doole ji dafa bari doole ji dafa bari wax dëgg yàlla loolu mën nañoo jàpp ni kon Sénégal léegi dafa am doole rek d'accord moom Sénégal léegi dañ ko peese bëstul bi daanu mhm. te it moom it mu yëglu amul problème mën nañ koo def conseil yëglu mooy yëglu mooy fii dangay gis nit jekk-jekk yëglu dara laa si mbir mi xam moom moo mook père Goudiaby Atepa dañu wax ne ñoom ñoo si doon dox tànk jàmm digganteem président Macky Sall. Mm-hmm. bañ waxtaan ba ba lii am. Mm-hmm. kon nag boobaak léegi xaj ne wooguñ ko remercier ko wala ñu woo ko ne ko kaa ñu waxtaan wala ñu woo ko boole ko ci leen ndax jàpp nañ ni loola mu doon def da ko doon def pour ndigalul président Macky Sall wala da ko doon def pour Sénégal. mais nee na nomination yi dafa Pastef maanaam daal waa Pastef képp la ñuy nominé. Mm. waaw waa képp noonu la waroon a demee mais demewul noonu. demewul ndax ndax man keroog wax naa ko ma ne ma ne kii lan moo tax ñu ñu fal ko Abdourahmane Diouf. Hmm. ñu ne ma xam-xamam. Abdourahmane Diouf bokkul Pastef te moom ñi mujj dem fekkoon naa ko si siis bii nii mooy ñu doon wër ndomba naan. ay xam si bi dañ ko nominé. <laughs> mu ni. ak Abdourahmane Diouf dañ ko nominé Abdourahmane Diouf. waaw mooy ministre kii. mooy yeneen jàng. am fan lañ ko nominé. am sët saw Sidi Bey nommé nañ ko. luñ ko nommé. non xam nga ñoom ñëpp lañ nommé. ok loolu yëguma ko boobu. mais Abdourahmane Diouf ñi mujj dem ci coalition bi la bokk. Mhm. fekkoon naa ko fii mooy ñu doon jéem a wër ndomb affaire yeeg yooyu. Ah? bi fi amoon rek ay dañuy toxal élection yi élection. fekkoon naa ko si ñi ko ñi ko taxawoon. kon diggante bi bu ñu ko fi nomee damay jàpp ne xam-xamam a tax ñu nomee ko. Mhm. ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bokkuñu Pastef ñu nomee leen kon booy wax daa war a costé costa daa war a costas te lii nga xam moo xew xool ko ba pare génne ay point yooyu ndax kilifa da am foo xam ne boo tollee loo wax même ku àndut ak yow dina wax dëgg la loolu solo mm-hmm. mais wax loo xamante ni même ki ànd ak du xam nu mu koy layele loolu dafa metti kon daal kilifa yi maa ngi leen di soñaat ñu jéem di xool li ñuy wax tëdd di xalaat lii nan laa ko war a waxee lii nan laa ko war a na waaye jën léegi wax bëgg a wax wax te wax ji amul njariñ daal nañ waaw mais comme xam-xam la nee na lii buñ ci taxawul ba liggéey coow lu bari lay jur xam-xam bee ko réer ndax nee na bor la premier président dafa ameel bor premier ministre. Hmm. te bor ameelu ko bor. Hmm? bor bi moom ameelu ko ko. ameelu ko bor. ameelu ko benn bor. ameelu ko bor bu joxoñ. non non non ameelu ko bor bu joxoñ dañoo ànd pour laaj Sénégal yi fal leen ñu bu ngeen ñu falee dinañ liggéey ñu fal leen ñu ngi liggéey kenn amelu si kenn bor. li des mooy nañ liggéey ñu ngi si liggéey. projet lañ présenté Sénégal yi. projet lañ présenté Sénégal yi soo ko néewoon ku ko yor baax na. ku ko yor baax na ñi ngi ko yor ñoom ñi ngi àndandoo ñoom ñëpp di ko liggéey léegi nag boo ñëwee indi kii daa yore bor lii xoolal kii nii kii ni mu ko defee nii da koo fayee da ko président bi daa moom bi ba koy fayee kenn <laughs> moom réew mi di dañ ko ko dénk rek diir bu ndaw te bala nga waroon xam dara mu jéem faa def jàkk sa pare ba nga xam joxe hélas <laughs> Assane taxañ nga ko di joxe El Hadj xaar ak <laughs> nga ko balaa bu ko doon xam bu jéem a def jàkka ca pale ba. mu jéem a def mu dee jéem def jàkka ca pale ba xam. non boobu maa ngi wax ak maa ngi déglu laay nii maa ngi déglu laay nii. day gaar waale. waaw nee na am ñu ngi ko dénk am sa solo si